ci arbitre sifflé waat na combat boobu diggante Atou Pine Sara ak Petit Lille Wally eh Atou Pine Sara Petit Lille Wally eh, eh rëpp nañu de Petit Lille Wally Atou Pine Sara la ilaha illallah boy baa ngi sonal Admin Bin Sara Petit Mbine Waly Anne Bin Sara Petit Mbine Waly ndeysaan dafa diis waaw la, ilaaha illallaah booy ba sonal na ko de Petit Mbine Waly sonal na Anne Bin Sara da koy daanam déet rëpp nañu ñoom sa suuf waaw waaw Admin Sarah sara petit min hey Admin sara boy ba ay at am nga client ay de boy ba sonal lako de waaw waaw cey boy ku len moytu waaw waaw mo koy tegal sees dan nako petit bin wali petit bin wali bin ya dan at bin sara Give me राधा